bii ba dana cirpa kenn li ñu wax kon man lu ñu war a naan lu tax la keneen waxoon yow nga di ko wax yow dañuy téye ba téye woon Traoré démb garde ko abi laaj ko ba pare bi ma demee ñibbi guddi gi bàyyi nañ ko waat ko pour mu ñëw tey ci suba bu question rek yoo xam ne changé dara la waxoon amul dara lu ci dindi mais dafa daanaka xam nañ ni téye leen fi euh, ah dina doy waar dafa xam fi koy teg ah, gisuma ñu dañuy wax seen déontologie c'est-à-dire fi war a jaar seen liggéey ndax am na manquement ndax tooñ nañu yoon ndax def la ñuy warul def loolu dana jafee génne ci dossier bi man nag mënuma dugg ci dossier bi da ama droit la ñu wax ca biir mais am naa man njort ba rafet ni ah muy géey mi nga xam ne du ma avocat

di ay sàcc duñu ay ñu yàq dëkk bi wala ñu taal dëkk bi seen liggéey rek lañ def kon war nañu am njort ba rafet ci sama gars yi tey ñu ñibbi seen kër incha allah rabbi je crois qu'ils seront libérés parce que il a aucune raison de les retenir ce que je peux vous dire pour le moment parce qu'ils vont savoir raison garder et libérer ces journalistes qui n'ont fait que leur travail. Vive la liberté de presse. Voilà. Notifié que sur les charges. Comment Est-ce qu'ils ont été notifiés sur les charges Non, moi je ne vois pas les charges. Est-ce que Mohamed Gueye aussi a été entendu Oui, il a été entendu. Vous êtes son avocat aussi Non, je ne suis pas son avocat. Je pense qu'il n'a pas d'avocat. En tout cas, je n'ai pas vu un avocat là-bas, mais ils m'ont dit, devant lui, qu'il a été entendu.